waaw salaamaaleykum. Eh? kaas nga nga doon kii nii. lii Sénégal yi lii ñuy lekk lii lii lii ceeb bu périmé ay tonnes yu tonnes hmm? waaw amen lii euh, direct la il faut gars xam li ñuy lekk ah wala bii ne lii war na mat ay toni toni tona hmm? voilà il faut comme ça léegi ñu jël ko sol ko ci yeneen saako yu bees tu vois léegi mixé ko sénégalais yi di ko lekk ceeb baa ngi nii ngeen bàyyi ci xel voilà tout est filmé voilà donc lii côté bee des na ceeb bi kon bari na de la ilaha illa voilà lii lii lii daal mu ngi nii fii la xewee ah Petersen Petersen la xewee donc commissariat Rebeuss ñoo def lii ñoo leen jàpp ko